Chers téléspectateurs, veuillez abonner sur WAF Production, Fashion Photographie, votre label de production. N'oubliez pas, veuillez aimer, partager nos vidéos et surtout appuyer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Look me, yaa neex ci xool la ba ndugu neex bëggee la bari doole lu mante xew noo mën a mel foo mën a ne xool bi yow la bëgg mama don't join na if not, why you falling woman bu ma wax grand si si yaa ngi amee lu xew. dama bëgg Fada bi sa morom Fada mi nga jàppee sa petit frère laa bëgg mu dakk. ah man comprendre ma dara. yow nga ne yaay yor seen kër yaay fay ndox courant lépp di fenn loolu amul. effectivement loolu moom suñu ma loolu musul am Fada du sa morom est-ce que yaa ngi dégg. am naa si yow respect ah. mbay respect jël ko teg ko fële tey indiwuma respect est-ce que mais la nga may jaay bu dee bandi maa la gën a bandi. mais yow mer nga. Mbaye loolu boo si delluwaatee naa la def lu bon. waaye mer nga naa ma nii. Mbaye gën kan a wax mer. Euh, tey nag li ma bëggoon a wax mooy suñu jotaay bi bëggoon naa xale fekk waaye xam naa jar ndax ñaar dina ndax bu commencé am ci kër gi fi di kilifa. dafay mel ni wegoo leen ma dafay mel ni joxoo leen ma cër ndax moom mii biig ci guddi wax nañu wax joo xamante ni sax xaw naa xaw naa dëgër mooy dafa gis ne doomam mooy joxe dépense bi moo tax dafa bëgg fi mu toll yi ñu xaaj ko ñaar maa ngi ñëw wax naa ceeg moom nag la mu war a wax ak moom que paate yàgg naa yor kër gi kenn mësuta wax Ken musta xalat xam ki mo joxe ki ak joxewul waaye nag bu dee non nga ko gissé sa dom budé gëné mom kili euh, kàddoom ko yor yaay kilifam man déggaluma duma ci wax wala sama wax lu ci bari man nak bëggona ci xam say kaddu lan la ci ak lan nga ci xalat ndax buma bu don lima gënal moy ñun ñu bokk ñeul di añandoo di bokkandoo benn ndab waaye nag comme noonu la deme te it noonu la ko xalaatee mënoon naa ci waxtaan ak yow rek ba xam ku si nekk nan ko gisee. aw Diop loolu nga décidé. waaye mer waaye grand boss mën Bas, bas, bas, bas, awa dama la laaj loolu nga décidé. man maa ngi wax naa ko sama nijaay ba pare du ma ci dellu ginnaaw wax di du ma ci waxaat nag. baax na te nijaay yow tamit approuvé nga li mu wax. xam nga du ma gën a sama njaboot di séparé di teg ñaari cin ci kër gi ndax ma su fee am waaye bu demee ba nar indi coow moom mu jàpp ne walla gis ne doomam li muy joxe. su ko joxewul doo lekk wala man duma ma lekk wala keneen du lekk ci kër gi. Ah, waaw baax na comme noon ngeen ko gisee amul problème ndax amul ma ci wax ndax lu mu metti métti ak lu mu neex neex kër gi yaa fi kilifa du ma tegg sa kàddu teg sama bos comme nag noonu ngeen ko gisee yàlla baax na am yàlla yàlla mooy buur ñàkk yàlla it yàlla mooy buur te nag ndijaay dinaa la xamal leen na gis nga sa noon bu la yéenee xiif fexeel ba heure boo ko rombee di sàqami. loolu sama neex joxante geeg jébbalante gi jaru ko yaa ngi may dégg. yaa woote waxtaan. mani ni damaa woote waxtaan waaye wootewu ma téesante ak sànnintey baat. xanaa ne ku nekk na wax na wax na wax na wax na wax na wax. sa xalaat ngay wax. te yow wax nga sa xalaat ci guddi ba noppi te danga nga ñu xaaj njël li def ko ñaar. mën naa ne ku xëy teg sa cin. waaw. baax na. ma njëg. baax na mën ngeen jóg

sama yaay aussi même chose Amna aussi bon kerga aussi amna appartement bo xamni c'est uniquement réservé pour toi foofu ken kenn du fa daagu ku dul yow appartement kiné laa koy tuddee magasin aussi amna yu ma la yo xamni pour bo bëggee changer sa place Yoy foofu mo gëna yaatu mo gëna a équipé et tout Lepp mën la ko gérer comme ça sa projet nga innové tuuti changer vraiment loolu noonu yëpp def naa uniquement pour tay ma firndel la sama bëggeel ci yow et eh, ça je n'attends que toi il faut que tu dis quelque chose sincèrement ouais c'était ça. quest que là ouais je pense pas que le moo tax nga ma te plaît wax ma li que doy ma je ah, mais c'est plus important que ça. c'était ça ah, Il a lu important ah vraiment pour l'air, il que effort yi nga xam ne Je ko sama diggante ak yow ba fi ma il n'y a pas autre chose plus importante que ça, sincèrement parlant. Il faut que réagir. Tu es sérieux eh, Sérieusement, plus que sérieux. Mais attends, tu es sérieux, tu es sérieux, tu gis la sa ba ko wax ba nga n'a ma wax nga ay say ay samay là tu exagères wax n'a la ñaata ci baat bi ma lay wax ni bu fekkoon te si day booy say noob laa tee sood parce que wax naa la ko ba sonn alors noob ma la pour une dernière fois. Ah ci biir noobu ma la ki ma noob xam nga ko te moom lay noob. Guèye tey sama waaj waaw mais yow Guèye loo xew ah? yaakaar naa ni yow yow yow Guèye. ma da nga am ak soxna si problème. Touré yow la nga yow naka lañu togué man ak yow suñu kër ñu waxanté lañu Wow, waaw ñaari xalé yi bëggante. waaw ngeen da ngeen def sen coalition jappal ma japp waaw dem and ne da ngeen may xalé bi. waaw lolé yow sa bop nga ko def waye defo ma sa bop nga ko def <coughs> même nga bo di may sax budul dara budul dara. ki ne mi ñuy may man lanam la duma bayam Wow. yow ak saw ngeen def sen coalition genn ma ci ndax beugante won ak sama dom yow nga and ak saw waw def yëfi fek waw ah waw ñaar bir na ko wax waw gis nga gor waw du sekk jëf gor du wax ba pare delu ginaaw ci lam waxon te yow nga def deug la gis nga bu and dañuy and ci deug and ci andum gor waye yow do la nga hmm. do nit dara yow ah saw lu mu yor alal motax nga dem tofu ci wetam gis nga yow eh. wañ nga fu toy rek nga tak eh. Dedet way dedet way si si dedet si ag mu ngi ñaaw nak mané ñaaw na ba nopi ah bo ah si mo tax nga bëgg ko ñaawal euh ma mané agalel géeg job la ci yemale yow do nitu dara

di ma klaxonner gauche et droite dans les rues parce que là j'en ai marre de ma sonn carrément et puis Jibril tu sais que am nga man aw habitude de yuuxu nit ci je sais bëgguma aussi humilié nit devant les gens moo big bi nga ma jëlee pour dund damay déposer bi nga gaaree ma toog waxtaan ak yow parce que mënul yuuxu ci mbedd bi kon s'il te plaît laisse-moi tranquille Jibril Pathé moom moi nopp wax naa la ko waxaat pate la nopp te moom c'est séer te sa proposition bi may def ni yaakaar naa am ko gëna soxla nice nak c'est bien bon lu jigéen ñëpp bëgg la mais malheureusement moi j'en ai pas besoin fan yee passé on dirait que sa cousine tase na ak man am na benn copine am ah bon si oh encore sali mu téye ma pour wax ak man mais bref l'autre débat bi c'est pas important mais pour wax la rek né la bu dee soxla koku yakarna mérito na ko parce que elle t'aime. Oh. Djibril pourquoi pas en fait s'il te plaît. ne parle pas de cette fille s'il te plaît. Ouais, day pourquoi pas li ngay dàq mu jëm ci biti nga resté ko sa biir kër sa mbokk la pourtant elle est très jolie cette fille pourquoi pas la nëb ko bal ma am jàmm mën a paate. ay question de mbëggeel la lay wax. Pate? Pate? Pate? suñu ànd bi ànd na yàgg na yàgg goo xamante ni kenn mënu koo naatable yaakaaroon naa yow leen sa bët di nga ko teg ci leen loolu ay affaire xaalis ak ay lii ay lee gannaaw ba noo ko gisee nag baax na man ngaa jël seenu bopp. jërëjëf kay sa kàddu rafet na say wax baax na mais leen rek laa la bëgg a wax Guèye man lu ma def maa ko def aw ma ci nëbbu aw ma ci ragal beneen bi mooy Guèye li euh, nga baal ma ni nga wax yëpp dëgg mais dama bëgg nga xam ni Guèye dama laa jàppale ba sës mais c'est vrai l'argent est est réciproque propre. mais Guèye Jibril bu ñëwee gis ki ne bëgg ko Bayam amni ci te moko jur ah nak wax deug yalla doomu jamm nak duma ci dem ba jeex te nak c'est normal ça..! mais yoon la man suma amé sama dom bu ma nexé xol fi nga ne kat carrément mën na dimbali mu dimbali ma tam mu mais bëgg top ci nek ci social après bëgg jappat benen social euh, ni nuñ ko nuñ koy waxatee sax euh, ku pauvre nan lañ koy waxee way nan sax man wax ji ma ngi koy bëgg ki yow ka social nga ka social nga mom yor yag na ko wax saw yag na ka social nga ma la doon sutural di wax ni mais c'est vrai wax na deug ni da ngay am deureum ak deureum ay and yow amo mono te nag sëy bii day continuer ba faw parce na xool leneen mais nii lan la fils de merde wax nag mu ngi bëgg a soof gay te nag leen naa la ko xamal grand place bii ngay toog di fi toog yaa ngi noonu sa biir kër ni may wax naa la ko nga dégg ko waaw grand place bii du grand place ñun suñu genre yi maag maag saw ndax fii ku fi toog da ngay ñàkk te nag damaa romb sa kër sa waxaale la ko da ngaa pauvre nag di nga xam ni booy bi dina seeg booy bi par force

ñeneen profil bi engagé malheureusement. loolu nag tàng na de. ah mais nu may def mënuma toog foo ma dugg nekk si bagage yi. t'inquiète travail ni ça mais attends yow xamee ma ne fii de nu fa demee woon. suñu benn collègue. mën naa doon jàpp fii waxtaan ak moom fii waxtaan ak moom finalement monsieur la ngay traversé. collègue bi collègue c'est sûr.

waay namoon naa la waay maa la raw naka waa kër gi yow ñaa fa waa ñëpp ngi si jàmm yaa ngi si jàmm ça va namoon naa la toogal maa la raw yàlla ya, xam na ne namoon naa la ah billahi maa raw mais si jàmm bu baax alhamdulilah naka affaire yi ñu ngi nii rek yàlla xam na ne namoon naa la waa naka bitig ba bitig baa ngi fa ba bagage yi ngi dox waaw waaw mi ngi dox moom ah, alhamdulilah dëgg yàlla namoon pour man sax doo ñëw iya, yàlla def ah yow kat moom man taloo dara lu dul boutique bi rek. yow nag de am naa sa jot wax dëgg yàlla. ah waaw ah, jot bi moom lu mu tuuti tuuti. Hmm. yow moom am si place. Ah, mais yaa ci jàmm bu baax tulaay tulaay. naam. sama gan gi lu sedd xam naa ne daa doxee tàngoo. dëkk bi moo tàng. namm naa la de. dëkk bi da tàng jër la de billaay maa la wax. Kan? maa ngi si jàmm maa ngi si jàmm moom alhamdulilah de pour man sax doo ñëw. ah loolu nag du ko def nak. sa kenn mënu la fa wante yow sama temps am nga xam nga sax ah maa ngi yow nag doomu ndey lañ dañoo yàgg nag billaahi mais yaa ngi si jàmm maa ngi bu baax. naka waa kër gi. ñëpp nga fa. waa naka bagage yi dox fa rek di rafet. ah dox rek. alhamdulilah. Mhm. namoon naa la de wax maa la raw bu baax a a baax. trop xam nga ne namm laa tax tey moom ma sol sama dàll bi ñëw. non tey moom kontaan naa. waaw tey moom du ma la wax daara. noonu la tey <laughs> moom góorgóorlu ci jàmm bu baax. Ah, alhamdulilah boo nekkee ci jàmm rek man maa ngi ci jàmm. jàmm dinañ ko yàlla boole ci jàmm maa ngi ci jàmm. Ah, man de kontaan naa ci alhamdulilah. merci. merci waay. mais dafa guddi bu baax affaire yi. guddi ba waaw mu dox moom wax dëgg yàlla. ñu ngi sant yàlla xam nga dëkk bi léegi daa waaye ñu ngi sant yàlla bu baax. alhamdulilah. naa la. maa la raw pour eh? man de doo ñëw sax. ay yàlla tere. Hmm. yow di ma jox rendez-vous ma bañ a ñëw. ah man nga doon xaar sànq ba tey de pour man sax doo ñëw nax yow say liggéey la ëpp doole. yoon bi rek moo xat wante xam nga ne yow moos. Hmm. du ma la jox rendez-vous ba pare bañ ñëw loolu du ko def. Ah, dëgg la moom loolu yàllaa ñu boole. mu yor ami bu mel ni yow depuis xale ba léegi. waaw ah, ah, loolu moom ko def nag yow tamit maa. ah keroog de moom wax dëgg yàlla liñ doon waxtaanee de moo tax mu oolu la. liñ doon waxtaanee bari na mbaa du affaire xale yi Salé Jibril. affaire xale yi daal. ñun si di wax rek comme la nga waxoon mhm. ndax jibril moom dëgër na bopp benn dëgër bopp boo xam te ni nii da ngay wax a wax wax ba sonn mhm. sale moom amul problème waaye man jibril moo ma jaaxal dëgg la da ngay wax ba sonn moom moom bàyyi ba la nuru lu mu màtt day dagg waaye xale yi léegi dañoo nekk njabootu kinaara ñoom dañuy jiitu rek ñu ñuy topp seen kaw ah waaye day fekk nga topp leen si li ñuy yoon bi ñuy jaar baax naxtaan rek yoon bi baaxulee moom ah xoolal ay xale lañ nañ naxtaan rek ba ba ñuy am liñ bëgg du loolu moo gën xale yi daal nañ leen di naxtaan rek ñoom moom bëgguñu koy xëccoog ñoom waa loolu baax na waaye tamit ku wax lii wax lale keroog tamit am na loo ma doon wax de waaye damaa tëdd sama lal daal xalaat xalaat ba ne loolu daal gën jot na gannaaw day mm-hmm. loolu muy wàllu borom kër <laughs> ah kii di yow de kii sama copine <laughs> sañoo ko man la de yow tamit waaye sañoo loolu waaye nag yow tamit waa déggoo li ma la wax bàyyi ngay def yaa pare nii ah nee naa bang mako ma ko junjee keroog kat yow kat kenn du yow ndax yaa ma yaa ma cucuk kay baxna ma tok xalaat tëdd dal, mané dal li nga ma wax dal xalaat la parce que lutax moy bes dina ñew hmm bu xalé yi kenn ne kenn nek fi mu am wéttal boobu baax na de jaamu ci yalla sax nak dafa jot nak bu batay yaangi tok rek toogaay bi amun njëriñ parce que lutax nak xalé goor yi ñu si bëri mom. boo nekkee ci buum duñ la bàyyi nga sëy normal duñ la bàyyi nga sëy sa moroomu doom mhm. sa moroomu rakk waaw façon bu ne ngay gis waa loolu la nag bu ne ngay gis bu ne moo tax na nga war a ut koo takk buum bi rek teg ko sa wet di si jaamu yàlla léegi daal ab xale daal laa bëggoon bu may toppatoo yow daal ndekete bëggoo jaam le ah, bu ma waxee xale yow la nga gis xale yi léegi dañuy ñëw lekk sa alal ba mu set duñu ñu jubóog say doom tas sa kër lekk sa alal dem seen yoon ah, kilifa daal day mot kilifa uta sa jantal paa sa jantal paa bu baax mu géral la njaboot gi Sénégal jëm kanam yow daal fu ne ngay fëllee ah su ma la amul woon fan laa ah, jëm moo jaaxal yow xale yi léegi bàyyi mu dem dàqal rek mu dem ah. baax na bàyyi bàyyi ko xale yi rek utal sa kilifa sa jantal paa mhm. mu ñëw gérer la sa kër nekk mot kilifa. waaw léegi nag loolu nan lañ ko war a mën a wutee ak nan lañ mën a def man daal ku ma bëgg te yàlla tax uufal ma samay doom fonkal ma samay doom fonk ma loolu daal laa soxla. bàyyi ko sama loxo jaamu si yàlla ah. bàyyi sama loxo. Ah. nag da ngaa affaire nag. dinaa ko régler kenn du eh, <laughs> dinaa la utal kilifa bu mot kilifa. Mm. ñëw gérer la sa kër te dina jubóog seen njaboot kilifa day mot ah, kilifa. waaye xale yu góor yi mooy loolu. Mm. wóor na yàlla dañuy ñëw lekk sa alal dem am nañ xale bu ndaw nag bu ñuy yóbbu sa alal sa ruq ba nga ah, dëgg nag lekk sa alal ba pare mhm. duñ say di sa doom ah. te yaa ma gën xam jibril jibril daa tàng waaw loolu de dëgg la moom dafa tàng de waaye nag am na ya nga xam du ko nangu si biir kër gi utal sa kilifa bu mot kilifa mu ñëw gérer de sama xarit la nag ah, waaye tamit am na yaa du ko nangu tamit de te pa xale góor yi dañuy waaw bu weesoo loolu daal moom amul problème yooyu moom. waaw pour ñu waxtaan ci après maag moom. Ah. loolu amul problème. waaye daal bëgguma ku ma tasal sama kër daal. loolu du am. ku ma yor yoral ma samay doom. Mhm. te respecté ma loolu daal laa soxla. incha allah yàlla baax na yàlla comme ni nga ko waxee woon. yàlla na lépp ak yow du yàgg dugal sama ah, xel. kay yow billaahi toogaay bi amul njëriñ. Ah, dañ lay yeb rek comme li nga wax façon bu nekk mooy ñëw dañ lay yeb rek di la manqué. waaw baax na maa ngi lay déglu yàlla baax na l'essentiel daal maa ngi lay déglu ok yàlla baax na mais namoon naa la nag maa raw yàlla xam ne ne namoon naa la waaw naka tàngaay bi ak place tàng tàng jër waaw naka bagage yi ah bagage yaa ngi fa rek di gën a rafet ah man de man moom arrivage bu ñëw gën a rafet bul tax yow tamit mën nga ñëwaat place ba arrivage bu ñëw gën a rafet xam nga boo jëndee bagage boo ñëwee hmm. boo demee arrivage boobu doo ko fa fekkaat beneen arrivage bu bees ngay indiwaat man moo tax bu gën a ñëw gën a rafet man daal bagage su turki moom mm-hmm. daf maa neex ah, parce que day raar te da ngay sol ba doyal sol ba sol bàyyi moo tax keroog dàll yi mu fa jëndoon dëgg la ah ba mu ñëwee def sama sali de moom ma wax naan da cee bëgg xam naa naa ko si jëndal jeex na tàkk sax jeex na tàkk tàkk tàkk dara desu fa yow looy wax ni jeex na tàkk dara gisu fa bu ñëwaatee am naa beneen arrivage incha allah. waaw kon waaw bu neexee yàlla. namoon naa la raw billaay maa la raw. yàlla xam na ne maa la raw. yow daal bu ma la gisee rek man maa ñëw. ah tey ñëw naa na xanaa tey moom dootoo wax dara. non tay moom waxuma dara. Ah, jeex na nag xam nga yow tamit liggéey bi mayu ma ko. ah loolu tey moom góorgóorlu naa ba ñëw. ma ne nit daal boo amee si lu ngay yëngu. Mhm. yëngu si. dëgg la ba ku ñëw fekk la ja. dëgg la. kenn yow la bànneex ci xol la dund gu neex bëggee la bari doole lu mante xew noo mën a mel foo mën a ne xol bi yow la bëgg